waaw mbir mi moom ni ñu ko jàngatee ginnaaw bu ma nuyoo euh, ñëpp ñu ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu mooy euh, rafetlu wuñ ko ndaxte Sénégal euh, ñëpp dañ ko jagle woon dëkku démocratie ak dëkku liberté léegi nga xam ne nii moom la ñuy gis ne régime président Macky ni muy doxalee dafa faagaagal démocratie faagaagal liberté yi nga xam ne nii Sénégal yi dañ ko yàgg a xeex Ousmane Sonko convoqué nañ ko moom mi ngi dem wuyu ji dañ ko war a bàyyi mu wuyu ji dans des conditions yi nga xam ne nii moom moo dal xelam mais quel amul droit ne ko ngay ou wala droit parce que nous, eh, c'est le privé de ses droits les plus fondamentaux c'est la raison pour laquelle eh, nous avons ça dès le matin en disant que nous ko mu répondre ko ndax xam mbir mi lañ ci wax wax nañ gouvernement pour Ousmane Sonko ak ay c'est la raison pour laquelle nous condamnons avec la dernière énergie li nga xamni mo xew ce matin dafa nek lu nga xamni ne vraiment day yàq deru senegal day tilimal démocratie senegal ba pare di woné ben image bu nga xamni ne nii Sénégal kenn mosu ko foon xam ci lu mel nonu loolu motax ñu wara a taxaw jaamaarloog li nga xamni ne nii am day yakal réew mi yàqal Sénégal. voilà da ngeen di condamné ba noppi it fës taxaw nan ngeen fës kee ne en tant que ñu faré ci opposition bi. mais de toute façon xam nga depuis le départ en ce qui concerne. Euh, l'action parlementaire gis nga taxaway bi nga xamné ni mom la ci grand parti taxaw parce que dès le départ suñu bureau politique wax na suñu ay députés ñu contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko mais également suñu jeune yi dajé nañu ak jeunes passé fi def conférence de presse annoncé toute perspective de lutte bi nga xamné ni lepp lo xamné ni day nii la démocratie bi ñom ñu mën ci and ak ñom tay ji li nga xamné ni amna am rafetlu wuñ ko ñaawlu nañ ko et au niveau de l'opposition jël nañu initiative concerté wu ak suñu naataango yi bu n'êtes rien. fi ak ay waxtu lepp lo ne situation mom la laaj ko taxaw def ko pour défendre Ousmane Sonko mais au-delà de Ousmane Sonko défendre les libertés et la démocratie dans notre pays.